Assane Samb ñu ngi lay nuyu. maa leen kii tey jii Sénégal mi ngi préparé bu baax li nga xam ni itam moo jëm ci investiture juróomeelu président bi Bassirou Diomaye Diakhar fay la tey la nar a waat yaakaar naa ni noonu la mooy formule bi fa li nga xam ne moo di ca palais des expositions bu Diamniadio li ni mel ab moment historique la assan Sam lan lañu war a mën a jàppandi tey ak lan la war a mën a xaar tey ci prestation de serment bi mun nañ ko waxee noonu waat la waaw waat la waat boo xam ne nag day waat ci kanamu yàlla mais waat aussi ci kanamu nit ñi donc du question diine rek parce que côté diine mu ngi ci côté moral mhm. mais aussi côté yoon a ngi ci mën nañ la topp parce que da nga trahir sa serment parce que tamit serment bi waat gi li ci ne mooy ni dinaa jubal jubal man sama bopp ma jub jubal mhm. ba pare respecter unité national respecter également souveraineté état du Sénégal donc euh, yooyu yëpp da nga koy da nga koy liggéey pour sa réew lépp loo mën pour intégration africaine ak yooyu diñ ko def yooyu danga koy waat tekk ci sa loxo wax ni je le ñu wax loolu benn formule mais avant loolu dañ lay salal am nuñ la salale comme ni jaraaf yi dafay saltige yooyu sawal <laughs> buur daal dafa <laughs> sawal buur comme buur la <laughs> waaw comme genre buur la dañuy takkal benn chaine ci dënd bi chaîne boobu nga xam ne or la dafa am ay symbole symbole république bi Mm-hmm. nga xam dafa am lu mu signifié takkal la tamit benn espèce koo xam ne day day day nekk ci wet gi ak espèce médaille ak yooyu yooyu ay symbole république la ba la koy buñ la takkalee symbole république pare nag ñu waat loola loolu nag dañ koy def pour wane ne yow léegi toog nga ci photo président la République maanaam dugg nga dugg nga faloon nañ la mais nag ñu ngi lay door a installé ci trône bi mm-hmm. léegi ñu ngi lay door a teg ci fauteuil bi léegi nag moom ngi tekki ni man ngaa commencé liggéey bis ni ki tey euh, heure bi yow léegi nekk nga président la République du Sénégal te ci xew-xew boobu assan Samb dinañ ci ràññee ay chef d'état chef de gouvernement ak ay personnalités yi nga xam ni ku nekk day bëgg ñëw assister li ni mel waaw ñu mel ni musuñu la gis déjà day mel ni musuñu la gis ñëw seetaan si mais nag ay témoins lañ aussi hmm. ay témoin la sa moroomu chef d'état yi ñoo ci ëpp solo ak chef de gouvernement yi nga xam dañuy témoigner li xew wane ni ñun nañ ñëw bi ñu ñëw fii parce que dañoo kontaan ci seen réew mais pare nañ aussi pour liggéey gën a liggéey ak yéen. kon ñëw bi firnde la am na lu muy tekki waaw firnde la jàppale la firnde kontaan la déggoo ñuy annoncé ay quinze chefs d'état hmm. parce que ñooñu dañu kontaan ci xëy na Sénégal li mu wane waaw xamaguñu équipe bu bees bi lu muy liggéey mais nag ñoom dèjà wane nañu dañu kontaan wane nañ soxla nañu liggéey ak yéen wane nañ mag bëgg nañ sax inspiré wu ci yéen exemple moo tax ñu ñëw teew ban nañ aussi pour encourager leen di liggéey donc ñoom ay témoins lañ ñi Sénégalais yëpp nekk ay témoins ñi teew foofu ak ñi nekk seen kër yëpp ay témoins parce que dañ seetaan télé ñoo ñëpp ñu xoolee témoigné ah lii kat lu am solo la lii kat war nañ ko fullaal et cetera yow tamit ah nga wane sa bopp xam ni man kat sas nañ ma comme sas nañ ma lii nag man tam dinaa gën a góorgóorlu pour que li mu nekk ci serment bi ma gën ko respecté pour lu nekkoon sama programme ci élection yi ma gën ko respecté waaw loolu moma solennel yooyu dafa am solo dañ koy prévoir pour chef de chef de chef de euh, le chef de l'État président de la République chef de l'État même chef de village dañ ko programmé woon serment bi mais gis nañ ni la loi la respecté guñu ko mooy la loi de soixante douze hmm. parce que serment dafa am solo parce que say mbokk dañuy teew ñuy gën a am maanaa ci yow say pap say yaay sa nangam say soxna say doom ñëpp teew nga waat ni lii dinaa ko def mooy sas bi léegi ëllëg nag ñu ngi lay xool par rapport ak événement boobu te ñu la kay defal mooy waa conseil constitutionnel ñi nga xam ne ëllëg ñoo waxoon ne yow résultat yi dëggal nañ ko que yow yaa fal hmm. ñoom nag ñoo la jox lenge yi ne laa ah, léegi nag yaa toog doxalal commencé liggéey état bi kat lii la la sas nga respecté nangam ak nangam nga ne waaw ñun la acca léegi yaa ci des ko defee nag nga nga xandaa la foofu nag dem pale d'accord ci ci ci ci pale boobu beneen aspect bi euh, bokk na ci passation de pouvoir mu nekk lu am solo yaa ngi ko doon wax boobu itam hmm. beneen moment la bu am solo solo nal loo xam ne waruñu ko ab benn république mënu ko rate Sénégal en tout cas passation de pouvoir gan gi jëkk mooy dalal gan gi mujj comme kii mu ngi tàggoo di dem pale kenn dëkku fa kuy dugg na nga xam ne pale kenn dëkku fa gan gi jiitu mu ngay tàggoo mooy taral gan gi ñëw te léegi gan gi ñëw du fi ñëw pour liggéey pour cinq ans locataire la rek locataire u cinq ans locataire cinq ans boobu dañ koy dalal ne ko nag yaa ngi fi si ni jël réew mi mais jël ki ngay jël réew mi jox nañ la ko conseil na la ci fauteuil bi mais na nga xam ni man kat liggéey bi fii laa toll nga xam ni lii a état bi dénkoon xaalis koppar état bi mu ngi nii code banque yaa ngi nii. ah ay code numéro banque état bi daa am ay ta ba nit la rek daa am ay koppar daa am ay koppar am bagage <laughs> am lépp comme nit rek bu ko defee ñu jébbal la ko yow yow mi nekk léegi borom borom kër gi ne la lañ toll ci liggéey bi lii suñu relation biw mi kat ak état bi kat yëngatu na tuuti waaye nag na nga xam ne man lii laa ci wax ak lii laa ci def ne kat dossier bi lii boo ko négligé mën na andi problème Sénégal. Hmm. lii boo ko fonkee mën na mën na indi juróol njariñ Sénégal ainsi de suite bu ko defee ñaax ba pare dénk la donc président bu bees bi dafa soxla lool ci président bii dem dafa soxla sax numéro téléphone bu mu ko mën a joindre moo tax yow amoon nga njàkkare ba président ne damay dem. waaw dama ci tiitoon sax ma ne waay président li wax ni parce que mënul dem bàyyi président bés bi ñëw ay kii di ko ay secrétaire général de la présidence ak ay protocole yooyu di ko accueillir rafetul ensuite moom day jaaxle parce que kii bi day des teeru bi day des euh, taxawaay bi day des pour mu mën a xam fu mu jëm du yomb parce que fi ne am na boo boo xoolee ñun fi Sérida rek boo gestoo Castor na rek. Hmm. pont bi ñuy liggéey foofu taxawul mu ngi continuer mi ngi continuer mos. <laughs> ah waaw liggéey yi day continuer yeneen ak yeneen day continuer te léegi président bu bees bi autorité yu bees yi aussi war nañ xam. Hmm. donte ministère yi tamit dañuy def même liggéey bi ministère yi buñ ñëwee dinañ leen passé la ñoom itam passation de service ñu dem ci ministère yi xam fu liggéey bi toll. Hmm. ainsi de suite bu ko defee état bi mën na euh, état continuité amul taxaw service service public du taxaw. Hmm. service public même jour élection ku nekk administration bi force défense et sécurité yooyu yëpp ku nekk li nga war def yaa ngi ci donc du taxaw donc yooyu dafa laaj jindi donc passation de pouvoir joxel lenge la joxe lenge boobu dafa gindi la. gindi président bees bi mu xam fu muy teg tànkam waaw mu xam fan nga yemoon ak moom fu muy commencé mu xam lu mu war a mottali parce que li ngay commencé ak li ngay mottali bokkul li ngay àggali yooyu yëpp dafa jar comprendre donc dafa am loo xam ne président bees bi bu bu fi newoon dañ ko koy jox day jox président bees bi loolu d'accord ay secret d'état yoo xam ne kenn du ko wasaare ak kenn mënu kaa wax la paix en Casamance suñu relation ak yenn force de rebelle yi suñu relation yenn état yu difficile yi xam ne état yoo xam ne suñu relation neexu fu ci toll est-ce que am na mission à l'étranger ay mission secrète à l'étranger mais yooyu war nañ xam donc moo tax ma ni fonds politique yi boo koy supprimer attention hein parce que fonds politique am na njariñ de waaw ndax yenn saay état bi dox mission yoo xam ne du ko wax kenn du ko wax sax yenn kilifa yi ci état bi waxuma lakk na. d'accord. <laughs> waaw donc. <laughs> doyen léegi léegi bu jógee foofu léegi nag. ñu war a taxawal gouvernement nga war a am chef d'équipe mooy premier ministre oh. bu fekkee ni oh. ñoom ñu ngi tënku ci li ñu waxoon ba tey wax nañ coowal vis président amoon na fi après nag kooku war a nommer ay ministre leen i war a mën a jàppale ci liggéey bi te déjà rek faaw nga xalaat ñi nekk seen biir ak ñi nekk si biti ndax ñoom dañoo ubbeeku woon waaw waaw waaw waaw foofu nag da di liggéey bu am solo moom itam foofu la liggéey bi commencé maanaam ñan ñoo ñoo la war a jàppale ñan nga war a ñoo war a nekk euh, say say bras droit loolu dafa am solo déjà bu fekkee da ngay garder poste premier ministre bi changé wu boobaa da ngay nommé premier ministre boo nommé premier ministre nag ngeen ànd xool ban équipe gouvernementale ngeen di teg en place d'abord si nombre bi ñaata nit lay doon ensuite ci répartition poste yi ensuite yan nit ñoo ko war a occuper yooyu profil yooyu déjà yow sa parti parce que képp ku am parti loolu tax parti politique am solo ñu ngi koy négligé mais parti politique dafa am solo parce que biir parti politique ci ngay xam yow ci say collaborateur kan moom mën la euh, ku nekk la nga ma ne ku mën a économie di nga ko xam ku mën a culture di nga ko xam ku mën a relation internationale di nga ko xam ku mën a laneen ak laneen di nga ko xam booba yow boo tegee sa gouvernement rek sam xel mën nan boo ne sport sa xel dina dem ci diw boo dee économie et finance sa xel dina dem ci diw boo nee diplomatie sa xel dina dem ci diw boo nee laneen ak laneen sa xel dina dem éducation sa xel dina dem ci diw santé sa xel dina dem ci diw parce que moo tax parti politique moom moo lay jox chance boobu léegi nag dooyam foofu comme a nga ay alliés hmm. a ah, ñoo xam ne jàppale nañ si élection ak ak sénégalais lambda bi toog këram muur na ni kii nit crédible la mën na liggéey bëgg na Sénégal te honnêtement parce que ñaari dimension yi nga war a jiital mooy benn bi mooy compétence man ni nga liggéey savoir faire mhm. deuxième bi mooy moralité nit ki est-ce que nit ku honnête la est-ce que crédible la est-ce que mën nañ ci moom yooyu ak ak la ci collaboration parce que nit dina compétent honnête mais rebelle c'est-à-dire nangu ko yilif kooku neexul liggéey àndal liggéey d'accord ainsi de suite donc éléments yooyu boo ko analyser mhm. te te il faut nga def rapidement parce que mënoo toog di xaar parce que liggéey boobu da nga koy amorcé avant sax ngay toog normalement semaine yi yëpp biñ nee fàllu nga rek ñoom liggéey boobu war nañ ko commencé mhm. normalement ñu ngi ci d'accord donc boo ñëwee rek nga mën a installé sa sa équipe pourquoi parce que boo tant que équipe bi installé wul doo mën a liggéey loolu aussi c'est important moo tax mënul traîner il faut mu il mu gaaw d'accord doyen Assane Samb ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci ni nga nangoo tontu suñuy laaj. jërëjëf na baax maa leen di sant yéen tam di leen encouragé di sant ñëpp. jërëjëf mu nekkoon Assane Samb di journaliste nekk itam analyste politique analyste politique analyste.